seetaan gis sa bopp waaw loolu donc ji ñaan nag sénégalais yi nañ ñu defal ñaan nañ ñu ñaanal mu ànd ak réussite. mu mel ni nag euh, gis naa ni xam naa ne du yomb parce que bu ñu xoolee maison de production yi fi ne ku ci mel ni Marodi ak li nga xam ni daanaka moo nekk euh, télévision yi fi daw yëpp mu nga xam ne ñu ngi def yëngu ci wàllu lii di théâtre est-ce que dana yomb ak ñoom wala euh, daaray Kocc moom dafa am beneen méthode bu muy doxee boo xam ni bu ñëwee rek bari na du mën a concurrence gars yi. waaw xam nga ñu daare benn comme pour leeral concurrence suñu kenn ñëwuñu pour wax ni li fi ne na fi jóge ñoo fi nekkoon dañuy toog déedéet concurrence suñu kenn dañoo am cër am lu ñu war a liggéey ci réew mi yàgg koo liggéey réew mi yëpp teg ci seen bët muy daare muy jamonoy tey muy euh, euh, waa Thiès jànqeen euh, muy waa donc ñun dañu ñëw pour dellu si pour liggéey suñu ak gali liggéey bi nga xam ne tàmbali nañ ko waaye concurrence suñu kenn ñëwuñu pour jël place kenn ñëwuñu pour pousse kenn waaw. mu mel ne leer na dañuy dugg dëgg-dëgg ci jëmmi émission yi ñu bari nag euh, jamono ji passé doon nan laaj euh, sama alaaji bi fu mu ne fan yii xanaa procès bari woon wala xaalis bee bari ngay toog di ko lekk. non du xaalis bu bari c'est que euh, benn instant yaram bi xaw na sutante. ma jël recul un peu benn instant aussi ma nekk ci cinéma bi di ci liggéey donc su ma amee liggéey boo xam ne jël nañ ma ko ci cinéma bi parce que régisseur la cinéma en même temps donc su ma ko amee damay dem liggéeyi ak yeneen business yoo xam ne maa ngi ci di ko topp mais euh, ak Daaray Kocc dañuy dellu si man personnellement aussi maa ngi xalaat maa ngi gëstu maa ngi euh, xalaat ak ay nit nu may dellu see man tamit ci cadre toujours rek bégal sénégalais yi comme ni ma ko daan defee. maanaam mën nga ñëw ak ko ci am na solo mën nga dugg ci beneen théâtre am na solo mais yow ak sa équipe équipe yu yàgg ya équipe yooyu maanaam gars yi il faut nga indiwaat ay quelques personnes boole koog jamonoy tey parce que gars yi ba tey jii say théâtre fu ñu ko tegee xol yi day sedd. waaw mooy mooy li ma la wax cest xam nga tey boo toogee benn boo nekkee ci dara di ci liggéey nga toog benn durée booy dellu si da nga ko war a gëstuwaat da nga ko war a saytu da nga ko war a waxtaanee. da nga war a xool euh, naka nga mën a dellu see parce que euh, li nga toog liggéey bi dafa gaaw technique bi dafa gaaw professionnalisme bi dafa gaaw xam-xam bi dalay raw waaw parce que ade année yi ma toog ak li fi jot a dox ci wàllu technique ci wàllu xam-xam ci wàllu euh, liggéey dafa bari donc loolu boo bëggee dellu si il faut nga toog ak ay nit yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu technique seen xam-xam màcc na ci wàllu bind seen xam-xam màcc na ci wàllu direction artistique mise en scène bu ko defee ñu mën la encadre luy indi mu leer nga dellu si d'habitude comme ni la Sénégalais yi soppe bëggee ko daan la ko suivre bu ko defee xol yi mën a féex. dëgg la dellusiwaat gi ñëpp danañ ko soxla comme ni nga ko waxee mais dellusiwaat gi dafa am façon parce que jàpp naa ni. Euh, mën nga dellu siwaat jiima signé ak benn seen YouTube bu bu am doole soit nga dem event pro nangam ak nanga pour diffuser wala maanaam nga dem euh, Marodi wala nga seet télévision booy jaay say film est-ce que yaa ngi xalaat wut seen YouTube boo xam ni fexe ko liggéey ba mu am doole bu ko defee nga mën ko soqali ci sa théâtre yu am solo yi nga xam ni soo defee loolu jàpp naa ni dina doon ay xéwal ci yow. waa loolu moom maa maa ngi koy xalaat euh, am chaîne YouTube boo xam ne day day day day bokk ñëpp. mooy li ma wax sànq rek loolu aussi xalaat la parce que man